Touba Taïf Karo nekk fii ci Grand Yoff en face hôpital CTO Taïf Karo nag Jibi Bamba mooy gérant bi ah mbokk yi Touba Taïf Karo nag kenn dootu leen ko présenté ci biir réew mi lépp loo doon wër ci wàllu karo yu baax gaawal gaaw ñëw ci suñu biir place bi di Touba Taïf Karo nga mën fi fekk ay karo italien karo espagnol wala karo indien ngeen mën fi fekk ay karo poli 1 mètre pour seen ay salon wala salle de conférence ngeen mën fi fekk ay karo décoration fondation yu amul fenn ay carreau faïence pour seen ay cuisine wala seen toilette ay grès poli soixante soixante ay plinthe wala ay baguette ba ci ay carreau parquet lépp am na ci biir Taïf Carreau ay carreau espagnol soixante soixante wala quarante quarante marche escalier wala contre marche ah mbokk yi lépp loo soxla ci wàllu matériel sanitaire gaawal gaaw ñëw fii ci Taïf Carreau li ci gën a neex mooy Taïf Carreau defal client yi promo boo jëndee carreau yooyu dem ci kër gi yépp fii ci Taïf Carreau nee naa la matérielu sanitaire ñoo la koy offrir defal la ko cadeau muy siège anglaise lavabo ba ci lépp luy taaral salle de bain waa Taïf Karo dañ la koy may moo xam kër gi nekk niveau un niveau deux wala niveau trois Taïf Karo nag am nañ beneen place bu nekk fii ci Cambérène ah sama mbokk yi yéen ñi nekk ci diaspora bi am seeni sànca fii ci Sénégal bëgg a karole seen kër ba mu mucc ayib adresse bi fii dong la ci Touba Taïf Karo gaawal jël suñu numéro téléphone 77 745 60

mais Tafa lan moo nekk sa bët yi nga wax way ya ya ya tra ya ya ya quoi waxal Tafa mais la Balla Gaye nit la du la lekk Balla Gaye nit la du la lekk moom xibbil nga xool ko bu dee yow kay maa ngi soog comprendre sa premier combat bu fekkee da ngay taxaw ci kanamu Balla naan nii gis xoolee doo xoolee xonk xonk téye bët waaye yii rek yii waaw non man bagaay man war a bëre xam man bëre naa ko boo xoolee deg man man bala mi xam nga ne wax rek lay def de bala mi boo ko xoolee wax wax wax rek lay def de man moom xam naa ne bis bu mun a ko puusal mu puus non fada man li ma war a bëre du ma la ko wax ndax xam naa ne man ak samay coach ñoom Eric ak ñooñu noonu nga xam ne ñoom laa préparé fële ca Côte d'Ivoire ah di laa xool ba xool xam ni man am na loo xam ne du ma ko wax c'est quoi ça doo ëpp nday ba di nii waxa saa waay na ko eh xool doo dara doo dërëm nga bàyyi bala di tëb ci sa kaw rek lii mooy lan yaa ngi bàyyi bala di tëb sa kaw ba xam mënoo wax déggoo wolof mais làkk ko séeréer làkk ko séeréer mënoo wax làkk ko séeréer defoon naa fi yow ay xañaaja au grec jam moom ci moom it mu dem ci Casamance ne leen daa buulum kuuloo ma mën a ma ma ma ma war a ah, mu jeex mais tamati nii rek eh, eh, mu fexe ma bëri dëggaloo Balla Gaye naan nii eh lii lan la. rek nii rek nii rek nii rek nii rek dëpp bi ngay wàcc ci oto bi bi nga nekkee ci oto bi bu ñu la filmé da nga doon xoolee normal mais biñ ne Tapha wàccal nga sotti ndox rek Tapha commencé di def nii dafa digg mu bët looy gëm yi bët lan la ah lan la Tapha man comprendre lu ma la quoi su waaj koy bëreel face à face da nga koy xool wax ak moom nii da nga koy eh, maam yow laay waxal xool ma fii eh balaa yow doo dara waaye yii rek. ah bu dee da nga am yëpp koy solo lu vert takk lu vert comme ñang baalo ñang baalo gi noonu bi mu takkee vert bi coow yu démarré da koo tegg da koo tekk waat ndànk dégage nga eh, am ah, grosse bouche ah sàkkaan da kay da ngay wéer ay eh, xam naa sooy sàkkaane ba kaane say bët loolu baaxul yow li moo tax sa premier combat talaatiñ daan la nde yow bala kay daan la nde boo ñëwee jàkkaarloo moom rek nii ñu say bët nii en tout cas wax dëgg yàlla bu ñuy xool ci état psychologique bu ñuy waxtaan rek te yàlla tax li Balla Gaye wane tey ak li Balla Gaye wax tey moom wax dëgg yàlla boo xoolee réaction wu Tapha Tine da ngay posé waat question est-ce que Tapha Tine mii pare na pour Balla Gaye quoi Tapha Tine dem dem ba naan non man sama combat yi jàll li ma doon def laay defaat maanaam mooy Tapha Tine jël na décision bu pare ne moom du bouger day toog rek sérieusement Tafatin moom pare na moom néew du bouger day toog rek moom day toog rek toog rek lay def toog kese sérieusement ah i dafa yomb ngeen bàyyi Balla Gaye ne fii mel ni ko moom nit ñi taxaw naan Tafatin da ngay duul taxaw nii da ngay duul da ngay duul nii bala tafa bu bala bu nekkul góor yow góor taxaw saret di wax yow ngay ne fi di nooy Balla Gaye nag dafa mel ni daa jàpp gandax de Balla Gaye Balla Gaye daa mel ni daa jàpp gandax Balla Gaye xaw foo dugal tafaa waaye te Casamance naa ne daa di buddum koow de a jëg la naa ko jàng ba xam nga ñëwul foofu i dafa metti waay ni ñuy buuree rek mu ne ko wax dëgg yàlla dañuy buuree xam nga fadaam lii buur yow lii buuree la buuree moom kenn ku nekk ak ni nga koy buuree waaw yow soo weeree yow da nga tax ñoom Alain ay ñoom Alain yii nii dootuñu dootuñu reerati ay ñoom Alain Alain fii nii ñii ah, ay ñoom Bamba taxu duñu reerati booy ba lu am di ñëw booy duñ añ duñu reer waaw Alain moom sax baax na ndax Alain moom bu réeru wala bu añul sax bu ko defee poids bi wàññeeku biir bi dem <laughs> ah waaye nag tabax yooyu góorgóorlu tabax góorgóorlu. góorgóorlu góorgóorlu ah ñëpp naan Tapha amul fit amul fit mais saa boo toogee di ñuy confirmer ne xaw ma ne ah ay ragal baal man comprendre lu ma ko. c'est que xanaa xuloo sax xuloo la rek ma ne ko xuloo sax xuloo la ah lii xuloo dañoo xuloo yooyu xuloo moom sax sàpp ah yow nga gis yow nga gis Boy Niang bu waaye yow xoolal njëkk Balla Gaye ci àndam tegal ko lu métti ba Balla perte contrôle dafa ñëw rek may ñëw mu ne taxaw ne may xaaral rek bañ jàppee muy de xaw ma ñoom Bada ndax danañu reer fay. non tafaa nag weer weere nga quoi. Ah. gars yi bàyyi leen di ma laaj noo gisee forme forme Balla Gaye nee naa leen làmb ji Balla Gaye amu ci forme Balla Gaye xam la lay xaar ci làmb ji Balla Balla Gaye lépp lu mu am ci làmb ji mooy làmmiñ ak fit wu rëy ak bëre bàyyi leen côté doole làmmiñ fit wu rëy ak la ci Balla Gaye am yaa ngi comprendre ba Balla mooy xool lu koy bëree mu ñor xeex ba Balla Gaye xool lu muy xeexee mu ñor ndax tafaa mii ma gis nii pareegul tafaa mii mentalement pareegul ci kaw ba mentalement pareegul moom laa leen wax moo tax ma naa la bàll bis boo demee door ba dóor tafaa ne ko tëb dóor bi safut nga ne ko wax tëb safut dootoo ko defati da nga génn terrain koy génn bàll kooku moom na la leen bis boo dóoree dee bu boobaa moom mooy jël dóor yi dañu la wulli wulli yu lu leen laa lay wax waaye boobu boo ko dee door nga xool bu baax fi nga koy dóor kooku la leen waaw non saboté wu ma saboté wu saboté wu ma dëgg bi laa leen di wax Balla Gaye dafa newoon ci tawat tawat boobu dafa dem INSEP dagg ko d' accord